Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 2 août 2024 suñ fa jógee nañu ñëw fii ci Dakar fekk fa jakartamaan yi ginnaaw nag ay tracasseries yoo xamante ni ñoom jakartamaan yi ñu ngi koy dund seen diggante ak takk yi dañu prévoir dal amal li nga xamanteni moy mooy benn grande mobilisation ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août bi ñu nekk ginnaw bi nga xamanteni ñi di marchands ambulant yi ñom dal dal di ñuy jël datu juroom ñenti fan ci wéru août pour amal rassemblement populaire bo xamanteni fofu ci place de la nation la dal di naqalu li nga xamanteni dal daal ñu koy dundu ak les nouvelles autorités autorités yi nga xamanteni jamono ji ñoo fi nekk ñom ñi di jakarta mani nak joxé nañu rendez-vous le 25 août d'Al pour amal une forte mobilisation jëmele ko dal ci li nga xamanteni mo metti li di marchand ambulant yi leen na nak ci touru ñi nga xamanteni moy livreur yi la ñuy tuddee leen ciak càq bi ñu bëggee lancé benn campagne d'information jëmele ko dal ci ay revendications lepp lo xamanteni dal daal ñi ngi koy jàkkaarlool jamono ji considéré nañu ay tracasserie la suñu sukkundiko ci batu ki nga xamanteni moy Seydina Aline Fall di sen président national des livreurs leader du Sénégal mi ngi annoncé dal ben grande mobilisation le 25 août bi ñu jëm jëmale ko dal ci ben lettre d'information bo boo dal ni déposé nañ ko ci taabalu ki nga xamante moy préfet bu Dakar ginnaw lepp lo xamante dal sen ay revendication la di sen ñaxtu majeur bokk na ci dal considération ñu am ko ci sen kaw ñom ñoom ñu supporter ben yoon li di manque de tolérance bi nga xamante amul ben flexibilité D'abord, lepp lo loo dal ñu ngi koy proposer autorité yi ñu may leen li nga xamante ne mooy mutation gratuite jëmale ko daal ci territoire national bi diru ñeenti weer pour que ñu mën a identifier lépp loo xamante ni ay moto la jëmale ko daal ci subventionné lii di prix bi nga xamante ni moo waral permis de conduire yi bi nga xamante ni bépp livreur wala cag-cag da nga war a am lii nga xamante ni mooy accès jëmale ko ci permis bi également ñi daal di sukkandiku daal ci xamal ni ko daal lépp luy carte professionnelle jëmale ko ci ay gilet pour que ñu mën leen identifier ñu doon ay nit yoo xamante ni tey mën nañu activer jëmale ko daal ci secteur bi nga xamante ne secteur du càq-càq pour que ñu daal di koy formaliser bon noppi dal di teg ay création ay mutuelle de santé di ñu daal ci bénéficier wu bépp livreur ginnaaw loolu daal di président national des livreurs bi mu jàkkaarloog ay confrères u Dakar Actu lool la xamlé ci bir lool dal mi ngi concerner assurance bi jëmale koog sen interlocuteur ginnaw bi ñu xamle daal que l'idée di association bi déjà am à ay partenaires moom daal danañu amal une grande mobilisation pour voir dans li nga xamante ne mooy seen ñaxtu ba noppi daal di doléance ci kanamu les nouvelles autorités qui bi nga xamante ne marchands ambulants yi ñoom jàpp nañu le 9 août foofu ca place de ni dit à di euh, càq-càq maan yi di livreurs yi amal le 25 août une grande mobilisation. <laughs>